gën ñoo bëgg waali ma ne déedéet loolu mënta nekk guinéen yi waali a yaxay Guinée mais aray jooni Sénégal ndax nag ñun dañoo bëgg Maria Sin May sa biige ñun faramaare nii de gaaw leen waat ñu suñu Maria Sin May sa biige mayeewuñu abbalewuñu jouer concert ñibbisi mais daal kontaan naa ci yéen ndax nee naa la Guinée ak Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar <laughs> Guinée yooyu mën a accueillir nag macha allah sama xaali xiina waaye Maria Sina neex a bëgg le chanteur du peuple le golden boy de Framaren Maria Sina la may sa biige yaa dégg daali démb daali tey daali massa yaa nee naa la ko àndal rek jox nga ko gëddam yaa mën a woy yaa dégg daal yaa dégg daali mën a sañse te artiste nag day njool <laughs> njool ca kaw loo sol mu jàppala nga takk say or sañse sa sañse bu xeere wàcc Guinée Guinée yee di jooy jarul ngeen di jooy waali day dellu siwaat ndax ñoo ko gën a bëgg bu ngeen gisee loolu noonu yépp nag waali ku ko xam-xam ne dafa bëgg yaayam te xam nga ne ñaanu yaay foo munti dem ci àddina dalay topp waali tey ku xool ci moom di nga gën bëgg sa yaay ndax nee naa la fu mu dem ci àddina nit ñi dañ koy bëgg xam nga lu tax ñaani jaaga yi ñoo koy topp ba léegi nee naa la Wally ba mu yeggee li ma gën a neex ci Maria Sy Maïssa Bigué il est souriante il est accueillante Maria Sy yaa yaa yaa am jom yaa neex a bëgg yaa mën a woy yaa ami mélodie yaa baax gën riche loo woyul baaxul Maria loo woyul baaxul nee naa la Sénégal ñaari woykat ñoo fi am Maria Sine may sa bige Maria Sine maar ak Massa Issa Dieye Fatim Penda ak maa ñaan ñoo fi nekk di woy di da ngeen fay gis keneen kuy woy kan ngeen fi gis kuy woy ku dul ñoom ñaar ah kan moo mos dem Guinée ñu topp ko di di wax turam nii Maria Sine rek ngeen gis ndax moom nag dafa meilleur neex a bëgg bu génnee ñëpp dañ koy bëgg ndax sourire ba rafet Maria gudd fan lañ lay ñaanal ak wér gudd fan ak wér rek lañ lay ñaanal nee naa la ba mu solo ba parfumé wu parfum ba xet ga damaa fekk ba sama néeg ma ne waaw xet gii di xeeñ lan la ñu ne ma Maria Sine parfumé wu yaa meilleur te xam parfon yu baax yi fa mu nekk sa xol a rafet nag mhm. <laughs> man dama ko bëgg nee naa la bu ma jógee ci mariage sin may sa bige mariage sin maar damay ñëw ci kan Fatou Wore mi nga xamante ne moo doon def mariage bu rëy ba démb ak tey mariage baa ngi toj ci internet bi Fatou Wore danseuse bu mag bi animateur de tous les temps bi nekk ca télé Boubacar boobu di ko rukk ba mu mokk mariage am nag artiste yëpp a wuyu si xam nga lu tax xolam dafa rafet mu baax nekk xale bu yaru ku respecté ñëpp bëgg ñëpp mu sufee def mbaa wax fi naka sudul noonu Fatou Wore fecc na te kenn gisul ay cëram mu yéeg ci avion yi wàcc te musu ko tiitaroo musu ko ndamoo Fatou Wore moomu moo doon marié ca HLM la woon takk gi démb la commencé ba tey àddina yëpp fecckat yëpp daal di dem wuyu ji ko xam nga loolu baax a xam nga nit mun ngaa luwe ci seize waaye nit kenn munu koo luwe baax gi mu baax am respect gi ak yaru gi nag moo ko may loolu ñoom day géy ak ñeneen ña ak ñeneen ña ñoom ñëpp ñi ngi fa woon mais la gën a daw sama yaram ci mariage faatu Woré bi ndeysaan ba muy wax yaayam ba jooy yaay dafa am solo ci doom surtout sa bés bi nga xamante ne mooy bés bi gën a rafet ci yow muy jour biñ lay takk sa yaay war a teew di nas di nocci di def di dindi waaye nga xëy rek nga gëstu rek gisoo sa yaay loolu rek jar na ay jooy moo tax ku ci am sa yaay nang ko fonk ak nu mënti mel jàppal sa yaay ba mu dëgër ndax nag ku am sa yaay fowee ko gis ku am yaayam téye ko ba mu dëgër ku topp nag ci tànki Maria Sin may sa bige Maria Sin maar da ngay fonk sa yaay ndax moom dafa bëggoon yaayam jaaga yal na ko yàlla yërëm nee naa la Fatou Waré ñu ngi lay ñaanal sa sëy bii nga sokkorloo ni asamaan ak suuf yaag sa jëkkër am ci njabootu Serigne Fallou ak sëñ Babacar si waaye nga am ci njabootu Serigne Saliou Mbacke ñu ngi la koy ñaanal ngeen sokkorloo ni asamaan ak suuf waaw Fatou Waré sama xarit bi nga xam ne day ñëw samoon rek woo ma Rita foo ne ñëwal maa ngi fii ak a baax te gën te riche Fatou Waré yaa baax yàlla sama mariage bi nekk sa xoola nga dem ba dund santa ans yaag sa jëkkër ngeen suulante yal na doon sa njig lay sa mariage bi e ala kama sàll na atoy sa sabali xoola nga dem ba dund cent ans sa jëkkër ngeen suulante yal na doon sa njig lay sa mariage bi e ala kama sàll na atoy sa sabali bref <laughs> yéen ñi nekkoon ci nguur gi nag dégg ku nekk milliards ya nga jëloon yaa ngi koy delloo ndànk-ndànk hmm, noonu baax na waaw da ngeen war a delloo nag hmm. delloo leen dool delloo leen war nag waaw ay milliards dafa bëri kenn du ko bàyyi ak yéen ku nekk dellool ci discrètement boo delloowoo rek bal du tàkk fetel du jug te dara du jug ndax xam naa ne Diomaye ak Sonko ñoom ñàkkuñu fay ngeen jël ay milliards ñu leen di bàyyi ngeen di doxantu ci réew mi déedéet loolu amul de ku ci nekk nanga delloo te delloo ci ngor ndax nag sénégalais yi sonn nañ sonn goo xam ne ku delloo milliards yooyu ba ñu defaat ko ci réew mi dina dinañ suqaleku nag te ci réew mi lañu bokk delloo leen ci njëkk kenn du leen wax dara delloowu leen ci njekk ku ci nekk dinañ la fekk ba fa nga toog fuqati nag la nga yor waxuma ñu tëj la kaso de dañuy fuqati la nga yor delloowaat ko ci nguur gi xale yee ko moom xaalisu réew mi la ku nekk war caa mën a gis sa bopp te nag sénégalais yi jàmbaar nañu jàmbaar goo xam ne Sénégal gii ngay gis kuy liggéey lu bëri di fayeeku lu tuuti sénégalais yi te ngeen bàyyi ñiy liggéey ngeen di leen xoqatal bu ngeen jugee naan nit ñi duñu liggéey ngay liggéey ñu lay xoqatal di la ñoññental di la laaj ay papier samba papier demba papier nangam papier nangam nit ki bu jugatee opté pour liggéey nekk jeune dëkk ci réew mi dee leen ko yombalal liggéeyam bi nga xamante ne mooy liggéey ndax ca lay créer employé ca lay mën a taxawal société bàyyi leen papier nangam sangam yi ngeen di laaj nit ñi di leen xoqatal di leen ñoññantal yéen ñiy liggéey tamit dee leen wut papier ya war ak papier yi nga xamante ne moom lañ lay laaj wut ko ba mu mët nga taxawal sa société di liggéey boo ko defee rek jàmm na ñooy lenn tamit nafa fa jóge mooy xam naa diw mën naa dem mu dimbali ma soxlawul may wut papier yi wala papier yaa loolu day yàq dëkk dee leen motal seeni papier ngeen liggéey ci ngor pour la fayda ak jom xale yi am leen jomi liggéey waaye yéen ñi jiital kale yi ngeen bàyyi di leen fakastal xale di liggéey nga di ko fakastal amul bennam njëriñ bàyyi leen nit ñi ñu liggéey nag nee naa la su ma jógee foofu ba tey damay des ci Maria Sin may sa bige Maria Sin maar de <laughs> Maria Sin may sa bige la golden boy de Framaren ah ki nga xamante ne bu woyee nga ne gongo jaxate laa ba man jaxate laa ba man man man man moom laa munta muñ jaxatelaa ba nee naa bu ko wayalee guinéen yi nag dama bëgg xam nan lañ ko war a feccee ñoom xam nga guinéen yi <laughs> guinéen yi am na ñu mën a fecc de sama mbokk yi sama sama jaam yi am na ñu ci mën a fecc de waaye nee naa leen daal na ngeen accueillir Maria Sy Meyssa Bigué loolu neex na ma torop sax kontaan naa ci am ci mbégte ak bànneex loolu neex na ma ndax man nee naa la man ñaari woykat laa am masay sa jëy Fatim Penda ak maa ñaan waaye nee naa la Maria Sy Meyssa Bigué Maria Sy maar ah ñaan ñooñu man dama leen a bëgg bu ñu woyee rek damay kontaan yéen ñi ngeen xam ne nag da ngeen di rey nit ñi bàyyi leen rey gi dégg naa da ngeen a fekk koo xamante ne poulailler la yoroon jënd këram bu yàggul ngeen fekk ko rey ko bakkanab nit nag ku ko jël ci àddina bii di nga ko fay bàyyi leen rey gi ngeen di rey nit ñi yàlla war a rey ngeen di rey fan ngeen ko teg sama vidéo xoola bere fak yàqay ti mulaanaa waru ko woon a ah, doy na waa hello guys yaxeti bulana ancien <laughs> ah, eh, président Macky Sall daa teral Viviane di ko jox eh, kii médaille ci mon wayam waaw loolu dagan na dagan na dagan na bu ko defee dagan na yow nag timaanaa la paix dégg naa nga cay wax wax joo xam ne nii kiiwul bàyyi leen yooyu bëggante leen yow kay comme ne nga sareetu mbaam gi nga yéeg buggoo ko wàcc fa nga yéeg rek buggoo gëm sa bopp wàcc ko dem jëli ca médaille ya waa ki yàlla jox médaille yi teral ko doo ko ñaanal mu am jàmm rek ndax jàmmam sa jàmm mën caa nekk artistes yu jigéen yi lu tax bëggantewu leen artistes yu góor yi sax noonu ngeen mel lu tax yéen yéene wantewu leen jàmm bëggantewu leen du ngeen bëggante seen aar bi mën a avancé waaye Viviane am na ndam nga war caa wax lu rafet doo ko ca wax foo ko teg masay sa jëy Fatim Penda ak ñaan daa am jikkoy filing de jikkoy caay-caayu filing paaj la am mën a woy dégg daaj xoola ràmpe nag daa rampe xëyul rek di way nii de daa rampe génn gëm boppam daal di génn taxawal jolof band bëggante leen te jàppante bàyyi leen seen coxor gi ngeen nekke yow kay boo toogee ci sa sareet ak mbaam bëggoo faa wàcc bàyyil ki bëgg a jat privé ak avion mu yëg ci jat privé ak avion am bul xëjamal bul taqal suuf ti maanaa la paix bugguma laa wax lu la metti ndax dangaa mën a woy waaye gëmoo sa bopp sama vidéo xoola bere fa jaaxeeti wulaanaa du ko am ah,